yaa ngi cool. maa ngi cool Abi. yaa ngi maa ngi sant yàlla bu baax. comme dab boo yéegee sur scène da ngay exploser affaire yi euh, da ngay da am lu bëri mooy da nga da ngay arrivé euh, yëngal gars yi daal public bi lan mooy secret yow. waaw normal job rek après nga ñëw def fi nga war a def après mu jeex ah loolu kese la aussi di béggee ngaa bu baax parce que booy géro la et xam sigil na Sénégal Guédiawaye Sénégal aussi et que xam na fi mu jógee di ko ñaanal aussi affaire yi di gën a avancé di ko gën a yokk jom aussi est-ce que ça nga gis booy géejuwaay euh, di accomplir li parce que souvent dañ naan banlieusards yi euh, man dina ñuy def tuux affaire yooyu noonu nga gis nga Blindé di accomplir di yegg seen yu mag yi nii di accomplir ay yu bëree bëri yow qu'est-ce que ça te fait en tant que jigéen bu dëkk géejuwaay. yeah comme ni ma koy waxee rek le hip hop n'est pas sain affaire de mbedd la yeah c'est du religion en ci ghetto la jógee xam di ko gën a ñaanal rek comme ni ma koy waxee jàppale nit ñi ci seen i habillement ou bien nit ñi woo ci kaw yi seen parce que buñ ci paree dañuy simi mbubu boobu nekkaat par exemple audrey bi ñu waroon nekk di frise di frise la ci côté seen quoi ça parlons de habillement boobu noonu bokk na si li li tax gars yi di frise rek ñu ne du lu jot de ko tegal ñu lay tey loo ñeme ko ñeme ko ñeme ko foog yiw non du question de loolu mais ku nekk ak ta façon li nga xamante ni moom ngay sentir sa bopp et loolu nga fil man boog li ma fil moom lay def maa ngi déglu waxu nit ñi aussi mais duñ ma tere def li nga xamante ni mooy sama objectif. ok yes génnee nga daan mu nekk it ñu ngi xaar yeneen i affaire yeneen i it ci di Crazy. yee waaw après weeru koor yi incha allah parce que maa ngi job sama projet ak IS 814 ay ñoom King Beat Cello euh, Moussa nekk sama manager nekk sama producteur aussi après koor gi dinañu def ay sorties ay clip incha allah ak projet incha allah. di yaa ngi woor yaa ngi woor. je euh, <laughs> <laughs> torop. xaaral ma sant xaaral ma sant mbir. yi bëri na nan nga koy dundee ci réseaux sociaux xam naa ko mais sa famille déjà. waaw nan lañ koy dundee est-ce que comprendre nañ la wala souvent dañuy dañuy xaw a baisser les bras. sa famille donc du du difficile parce que man sama life yëpp ak sama yaay laa ko dundal ak samay sœur donc dinañ comprendre parce que xam nañ ni nekkuma ci lu ñàkk fayda su ma su ma su ma waree job dama koy job après ma nekkaat ci li ma war a nekk parce que doo ma si ñëw sama kër may may solu ay solu seen afa am truc yoo xamante ni affaire de scène la am tenue yoo xamante ni pour kër la pour parce que du ma dem palais di sol li may sol scène comme ni ma koy waxee à chaque fois musique aaru mbedd la affaire de mbedd la waaw comme ni ma koy rek man euh, su may dem damay dem euh, li nga xamante ni moo dal sama xel et ci laay ci laay frier et ci laay nekkee ci jàmm waaw je peux pas chaque fois di déglu waxu nit ñi booy déglu waxu nit ñi euh, mën naa ne amul sens parce que man dafa am lu ma yëkkati yee am fu ma bëgg a dem donc man maa fa mën a yóbbu sama bopp critique nag moom fii la fii fii lañ ko fekk. ba mën naa ne waaw waaw mën naa ne waaw parce que comme par exemple euh, euh, tenue boobu noonu biñ ko commencé doon ci wax comme li ci mel ni waa association Genji hip hop am na dañoo manko ñoom ñëpp même bu dul ñoom kese am na ñeneen ak ñu ma xamul man assumé naa loolu et xam naa ne man la parce que kenn béju ma kenn def ma dara man la neex ma def loolu noonu donc euh, mën naa ne jigéen ñi ñoo ma gën a soutenir ci par rapport ak góor ñi quoi donc am na. yee loolu mënul ñàkk mais man mbedd la man mbedd moo ma yar moo ma def li ma ni ni ma mel nii donc. Euh, doxee mbedd moo ma yar moo ma def ni ma ni ma ma ni ma mel et que moo ma fépp fu ma mënti dem moo may fit donc mënumaa ni mën na bañ a gaaw ah mais jamono ji gisuma ku ma mën a disturb quoi ci côté affaire yooyu négatif yeah waaw da nag man joolaa laa euh, waaw joolaa laa c'est normal quoi dampu bi moo normal ça quoi ma tamu fuy leew fuudi